Gora Khouma maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame. alors ngay secrétaire général union des routiers euh, bu Sénégal ñu gis nag ni en conseil des ministres euh, jot nañoo waxtaanee ci lépp lu jëm ci accident gu métti euh, gi am ci tali bi comité interministériel war a sax dajaloo ngir war cee waxtaan semaine prochaine ana nan nga jàngatee dogal yooyu la. en tout cas man bi ma ko déggee man kontaan lool ndax son excellence Bassirou li mu wax bëgg ko pour waxtaan am ba mu jox ndigal premier premier ministre war a def benn conseil interministériel ñu wax ci wàllu transport accident yeeg leneen leneen yëpp lu nga xam ne dafa ci wàllu transport man defuñu lu rafet lu ko ama qualité secrétaire général bi jiite Union du Sénégal bokk ay synthèse bokk organisation mondiale bu ñu wax AITF e donc rafetlu nañ ko lool te bëgg nañu aussi ñu ñu loolu def loolu parce que ministère transport yëgal nañu à travers la presse mois de septembre bii ñëw euh, a pour wax ci wàllu terme de référence yi loolu lépp dafa bokk ci li ñu war a contribuer pour que ñu mën a waxtaan pour ut ay en tout cas daal li nga xam ne la kaa wax décision bi président de la République jël man rafetlu naa ko te ñun ñëpp dañ ko war a rafetlu aussi man na ku ko rafetlu man rafetlu naa ko di ko encouragé parce que waxtaan mënul ñàkk ndax bu ma jëlee exemple rek ci tabaski bi passé bi premier ministre oote conseil interministériel am na do yu fa jógee ci wàllu tarif transport de bataille bi waxtaan ci njëgu xar bi waxtaan ci taxi waxtaan ci lu bëree bëri bëri bëri bëri mais gis nga bañ ci jubóo ca saal ba bañ fa jógee autorités yi muy lotile gouverneur les préfets les sous préfets ñun ñii ak ñi moom jur gi yëpp kenn ku nekk am këyit goo xam ne kii dañ ko jubóowul dégg nga gis nañu avant tabaski bi ci tabaski bi ak après tabaski bi jàmm ak salaam donc moo fi am te loolu moo war a continuer ci Sénégal Sénégal lépp dañ ko war a waxtaanee waxtaan terewul nga jël ay décision waxtaan terewul nga jël ay matuwaay. waane bala ngaa jël matuwaay waxtaanal ba ñu xam ne waxtaan nga bu nag jël matuwaay jotee nañ jël matuwaay mais man li ma bëggul dégg rek ñu na ay mesures yi passé man jàpp naa ci rupture lañ nekk Sénégal bu ñu jël ak ku ma doon muy transforme yi leneen mesure doo ko jëlee ci ci ci tiitaange tiitaange boo jëlee matuwaay matuwaay ba heure la doon ndax da jël te doo ko mën a appliqué mesure yaa ngi ko jëlee ci terre reposée nga xam ne dara nekkul sa kanam nga réfléchir lii mënul ñàkk nga waxtaan ci ak ñi nga boo ko tegee boo ko jëlee di ko mën a appliquer mais dem ci accident rek taaw ñu jox la micro nga wax ba wax loo xam ne lii tiitaange moo tax nga wax ko ou bien ñu bëgg ñu gis leen moo tax nga wax ko loolu man jàpp naa ne loolu amul benn njëriñ mesure mënu fee ñàkk waxtaan mënu fee ñàkk nag da ngay juboo baa nga ñàkk juboo mais waxtaan day am. Hmm. waxtaan nag bu amee kii di Sénégal kii di autorité yi waruñu wax ne luñ bëgg rek mooy am mais ñun ñii acteurs de autorité waxuñu ne luñ bëgg rek mooy am dañoo war a waxtaan li mën a nekk ñu ne lii mënul ñàkk ci suñ côté ak ci côté autorité yi parce que lépp bu ci waxtaanee dañ ci solution guerre yi li gën a rëy guerre bu gën a rëy rëy tamit ci table mujjee kon ñoom nekkuñu ci guerre ñu ngi ci nag ay problème wàllu accident bi mais war nañu ay solution solution daa war a ko transport war am mais malheureusement man ni ma gisee population bi ñoom facteur humain bi ñuy wax lépp chauffeur bi rek wax te du chauffeur bi rek chauffeur boo jiitu ba mu jëwul chaîne la kii daw la bokk na ci facteur humain la kii moom oto bi facteur humain la kii contrôlé oto yi facteur humain la kii joxe permis facteur humain la kii joxe visite bi facteur la borom jur gi facteur la borom dëru yi facteur la borom saret yi facteur la chaîne bi dafa gudd loolu lépp facteur humain la mais nit ñi dañuy jël loolu lépp teg ko culture na lii mooy facteur humain loolu rek nga dégg nit ñi di wax ci journaliste yi ci autorités yi non c'est une chaîne chaîne boobu wuru dagg da war nekk rester en bu demee kenn ku nekk jouer le jeu su ñuy a pas problème man jàpp naa ne nañ waxtaan waxtaan taxul ñàkk fayda waxtaan taxul nga am position faiblesse waxtaan taxul nga am position fort. alors que mhm. comité boobu waxtaan bu ñu amee rek. Mhm. décision daa war a génn décision bu ci war a génne nga war a appliqué. alors comité boobule sax dina tax ñu mën a saytuwaat ana nan la ñuy def ban anam rek ngir mën a dàkkal nag euh, lu ni mel waaye ndax loolu euh, dina doon solution euh, ngir rek mën fee jëlee accident yi la. lu mënul régler amut. xam nga ne boon ci waxtaan mooy nga bañ a indi sérieux bañ a indi volonté man góor waxuma mooy ba nga dem ci waxtaan wa am idée arrêté ou bien sama vis-à-vis bu état bëgg a ñun ñëpp dañoo war a am lu ñu animé dama ne concertation moo mën a man damaa jiital concertation mhm. tey bu ma nekkoon conseiller président république dama ne ko jiital concertation mhm. balaa benn mesure di jël ñi war a toog nañ toog toog na taxul nga nungu loo war nungu taxul nga bañ loo war a bañ mais toog dafa war a am solo te dafa guerre yëpp ci toog lay mujjee léegi boo toogee taxul nga ñàkk fayda ci ñoom taxul nga ñàkk fayda ci ñun mais l'essentiel toog nañu génne nañu xalaat te xalaat yooyu ñu génne nag décision bu mën a génne nañ ko appliqué mais man daal bëgguma wax ay décision yu passé rupture nañu am ay décision yu 2024 man loolu laa bëgg ay loi de 2024 ay prise de décision de 2024 pour qu'on oublie le passé cette décision nouvelle ak autorité nouvelle yooyu ñun acteurs yi ñu appliqué ko mais wax lu ma doon nañu waxtaan li nekk ci man ma wax ko keneen li nekk ci man waxtaan taxul nag man ma bëgg a imposer mënul nekk taxul keneen ma bëgg a imposer mënul nekk état waruñu imposer ñun waruñu imposer état parce que kenn ku nekk dafa am rôle boo war a jouer nañ ko jouer te yàlla rek tax te yàlla rek tax buñ ko xam ne Sénégal kenn ak tubaab du ñëw di ko dañuy defar benn xeet du ñëw defar xam ne dañ ko war defar loo xam naa ne accident yi ñaari chauffeur yëpp dee nañu waaw mesure boo mën a jël pour ñaari chauffeur yëpp ban njëriñ kon ñu jël ay mesures yoo xam ne yi day fexe ba accident du am moo gën fuuf bu accident amee chauffeur ba gaañu ñu dañuy mu jël mesure bu dee nag bu dee day rey day rey boppam reyaale ñeneen loolu amul benn njariñ man daal jomay li ma koy jox ne concertation bu ko kenn poussé ci force ñun ñii aussi bu ñu kenn poussé ci force nañu waxtaan ut ay solution ut ay décision yooyu moo ñu si mën a génne yaakaar naa ne assises yi ñu jëm ah man ay joxe bi ma ci am bu fa génnee le problème de transport sera réglé tant que ñi nga am volonté ak yéene ju rafet pour mu baax dina jàll xaw ma nag ñu am ay tricherie ou bien ñu di ay décision politique ou bien ñu bëgg rek def syndicat boo xam ne bi dangay naan lu ñëw nga ne non loo war a wax non neel non loo war a wax oui neel oui. te loolu ñàkkul fayda ci état ñàkkul fayda ci ci waaye tamit problème suivi nekkul loo xam te ne dafay posé bu ñu jëlee yenn mesures yi. saa boo jëlee décision boo xam ne bi xooloo ko ba mu war a nekk boo ko jëlee tamit doo ko appliqué. Hmm. ab décision da waxtaan ña nga a waxtaanal jël ko ci à tête reposée bu ko a jaral sama fekk bu ñu koy jël tiitoo rafoo ci mais xaar ba accident am nga soo a jël mesure mesure boobu mesure mesure tiitaange la mesure tiitaange tiit nag loolu dafa wax baaxut ki nga xam ne sax mooy ministre bi di El Malick Ndiaye jot na àdduna ci indiscipline euh, conducteurs yi ne daal euh, mu ngi koy euh, ñaawlu ana nan nga jàngatee foog nga ne loolu kese mooy problème bi ngir accident yi di am indiscipline conducteurs yi wala dafa am yeneen yoo xam te ne ñooy gën a indi nag ah. li nga xam te ne mooy wàllu. El Malick El Malick suñu ministre la mais dafa juum. moom ma nga focaliser wu ci. facteur humain bi facteur humain bi la mu ci jàpp mooy chauffeur ba la gis nga ñi indi fii dañoo bari ñi du respecté dara dañoo bari moom na commencé ci këram am na lu ko fa neex mais am na lu ko fa naqari bu dee bëgg naa defar Sénégal kan moo joxe permis du yow du man du yow ay doomam la kan moo joxe visite technique du man du yow ay doomam la ah kan moo defar tali du yow du man ay doomam la kon moom njabootam dañoo am rôle bu rëy bu ñuy kon gu ñu tël fi facteur humain bi rek na chauffeur ba la man foofu côté boobu damaa jàpp ne dafa juum facteur humain bi mën naa war ne cent pour cent lépp facteur humain la kay defar tali ba kay contrôler kay dawal ka moom oto ba ka ciy dugg borom saret ba borom mbaam ma borom jur ga traversé facteur humain bi dafay yaatu loolu tax ñu ne facteur humain mais waxuñu chauffeur si mais boo moom indiscipliné wul moom kooku indiscipliné kay jox période bi indiscipliné wul kay jox visite technique bi indiscipliné wul kay defar tali bi indiscipliné wul borom dóoru bi indiscipliné wul borom sànni bi indiscipliné wul mais nga ne si rek mooy indiscipliné day yàqu te El Malick gis naa mu am boo xam ne bi loolu kaa ko dine na jiital waxtaan wax naa ko ko dégg ci wàllu boo marché ni premier ministre waxtaan waxtaan waxtaan taxul nga ñàkk fayda waxtaan boo waxtaanee ba jël décision di ko mën a appliqué ndax yow da nga ba moom bu ñu waxtaanee lii laa wax ko ah, dëgg la mais boo beroo jël sa décision baa nga di jël décision da jël doo ko appliqué loolu musiba di jël ay décision yoo xam doo ko appliqué man daal ce que je veux des de 2024 prise de décision 2024 puisque on a des des des une nouvelle équipe gouvernementale de 2024 que tout soit débuté par 2024 qu'on parle plus maintenant du passé alo wax nañu tamit ci euh, code de la route bu yees gi nga xamante ne nag annoncé na ko waaye loolee ginnaaw euh, fukki nit ak ñaar yi nga xamante ne ñàkk nañu seen bakkan ci accident gu métti gi nga xamante ne jot nañu ko dund ana nan euh, vraiment nga jàngateelu lu ni mel. waaw mais xam nga mesure yooyu waru waru waru waru xaar ba accident am ñu naan wax code de la route. Hmm. code war a changé ñun am na ci loo xam ne ñu àndatuñ ci gouvernement am loo xam ne àndatuñ ko nañ toog waxtaan buñ toogee waxtaan. solution du mën naa am ci tëggaat beneen code de la route bu bees boo xam ne dafay ànd ak jamono ci ñun ak ci ci population ak ci état ñun moom soxla nañ ku ñu tëggaat beneen code de la route parce que code de la route ci manqué dafa bari parce que jamono dafay dox mu nga mel li ma wax ci tarif yi rek tarif Sénégal depuis 2008 amul tarif. Hmm. transport marchandise musul am tarif. kon gouvernement bees bi dañoo war a fexe ba transport de marchandise am tarif mais transport de passager 2008 ba léegi amul tarif te tarif li tax mu am importance diggante dëkk ak dëkk. diggante oto ak oto dañuy war a waxtaan consommateur yi toogal population bi les maires ministère du commerce ministère transport acteurs routiers yi ñu fexe ba juboo ci benn tarif tarif boobu ñu ko juboo président la bi moo ciy signé contresigné par le premier ministre mu wan ne ko c'est pas un document léger loolu at mu jot da ngaa war a à jour parce que am na lu yokk ci réew mi am na lu wàññi ko ci réew mi mais Sénégal depuis deux mille ba léegi amul tarif kon lu autorité wax naa lépp ni ko indi dem à un démarrage deux mille vingt quatre loi deux mille vingt quatre ak comportement deux mille vingt quatre tout deux mille vingt quatre loolu moo gën code de dañ kaa war a yeesal war na ñoom code de la route de deux mille vingt quatre parce que manquement yi dañoo bari ci code de ci code de boobu li ñu war a gën a boole muy wàllu assurance yi li li manque ci bi xool Sénégal tey jii dañoo bokk UEMOA bokk CEDEAO amul oto Sénégal buy dem bitim réew te boo ko amee boo defee jëyee da ngay lay poñe na fii nga taxaw doo fi jóge terale woo ko mais étranger yi ñëw si Sénégal bu fi jiyee amee ñoom dañ jël seen assurance CEDEAO ci lañ koy constaté kooka dem yoonam te loolu lépp ñu war a waxtaane la ñu mel autorité jël ay ma ay engagement ñu xam ne CEDEAO bon benn la UMOA benn la mais Sénégal gise benn la ñun loolu lañ soxla Gora Khouma jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay secrétaire général bu union des routiers du Sénégal ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup